journal bi askan wi daanaka ñi ngi joytu ci coowal suuf si jamono boo xam ne nawet nawet soreetul ak it góorgóorlu yi jënd terrain bu ñu góor góorloo ba am ko daanaka euh, ñu ñëw teg ci loxo litige foncier bi doonoon ay jafe-jafe mu mel ni gis nañ ci ñu bari nag dañoo mujjoon def ay kuréel ku ci nekk doon soutenir ki nga xam ne mooy euh, coalition Diomaye ngir am yaakaar ne bu ñëwee say rangoñ danañ ko fet ni ki waa ancien pist bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk fa ci waawoon pël ak Sangalkam. bépp voleur vautour suuf yi nekkoon fii def lu leen Oui moi, ma ñoom fuuti nañu xam nga la moo mhm. suñu président bii inspecteur impôt et domaine la daa xam suuf daa xam société ni nga dëkk bi ma doon journal bi mhm.

béykat moo gën a moom suuf parce que la fa la indi état ci réew ma ba état yilif suuf sépp di dagg ay kayit di ko jox ay nit loolu laa fa indi béykat bi gor ab àll bu kenn nekkul woon lu dul jaane ki gaynde ngir di fa bay bu ko fa dëkk fekkee daf koy doon dédommage xam nga béykat moomul suuf wax ju yàqu la mu ngi toll ci autoroute à péage bi bi ñu koy tabax tool yi nga xam ne ci la autoroute bi jaar ñi ñi daa daaneel seeni màng ñi ñi daaneel seen i kàdd ñi ñi daaneel seen guy laaj leen kenn ku nekk li ñu la dédommagé laaj leen kenn ku nekk ñaata lañ la dédommagé mm-hmm. bëri na mais bu fekkantoon ñoom amuñu benn droit daañu leen dédommagé béykat moomul suuf waxu caaxaan la mm-hmm. béykat moomam suuf ndax baykat dafa war a am suuf pour mën a bay mm-hmm. jomaay nag doomu baykat la dëkk ci village

li ma doon joytu ci ñi ñi intimider di nangu seeni ay tool. Mhm. bi da ko naa ndax du question donc changement bi mais qui ki la tête ci bopp réew mi moom dañoo yam base dañoo juddoo ci kaw. Mhm. am ay baykat ak yaayu baykat dund réalité gas ak jukkee war fas ak ci tool ba une heure gont ci dem texi ak dem Mhm. cooroon nga dem rouji dem faru laataa muy taw loolu nga góob déqi naaf xam réalité village suñu président bi da koo xam suñu président bi nekk foo xam ni ci triangle bi la bokk Dakar Thiès Thiès Mbour Mbour Dakar triangle boobu heureusement mhm. maa ngi continuer itam di sant yàlla ndax wax dëgg yàlla waa département bu Mbour yàlla deseelu leen dara bi Sénégal moomee boppam ak léegi am na ñaari yoon président Léopold Sédar Senghor Joal la dëkk département bu Mbour la. Mhm. Bassirou Diomaye Diakhar fay Ndiaye Ndiaye dëkk ca Ndiaga Ñaaw doomu mbuur la département bu Mbour la waaw Mbour nag yàlla deseelu leen dara <laughs> voilà ba loolu benn parenthèse bu ndaw la woon mais pour wax la ne affaire suuf yi ak jalgati yi. Mhm. Baye Moussa dina dakk mhm. promoteur yi moom bu yóbboo ñu wéer seen i métier promoteur bu légal Baye Moussa. Mhm. la. Mhm. millions bañ mu nga dem ci am ko mu assisté par euh, conseil rural après conseil rural bi procédure qui bi cadastre euh, domaine impôt domaine xam. Mhm. nga def sa ay formalité am sa papier entreprise. nekk ci immobilier def sa ay coopérative d'habitat pour jaay sa ay terrain fi lañu ko fekk fi lañu ñu koy bàyyi dëkk buy màgg day dund ak immobilier te dañuy exploiter suuf sa mhm. loolu Diomaye xam na ko ndax loolu mooy domaine am mhm. waaye nag na doon lu légal njaay bi bu mu nekk yow dong ak baykat bi bu mu mhm. nekk yow dong ak meer bi na nekk lu ngeen bokk yi ñëpp maire bi jël pourcentage am def def délibération. Mhm. préfet ou le sous-préfet approuver ko. Mhm. ñu def découpage bi identifier souf bi nikaat bi ak li ma la je vais géomètre agréé bi ñëw nattal lako génné le plan de masse bi li nga yobbu cadastre nga yobbu ko cadastre. Mhm. ñu identifier suuf ci xol bo xam état soxlu ko won denc ko fo wala déet nga introduire ce crédit impôt domaine ak papier entreprise buy ni chef d'entreprise, nga immobilier di jaay ay mu légal fi la ko fekk fi lañu euh, son excellence dana ak man la wax société yi normal daañu continuer liggéey. Mhm. mais société fictive jël ko un promoteur fictif jël xaalis ñi daw ak moom promoteur fictif ñëw dajale ay hectares dina dakk de maa wax loolu bàyyi ko sax. Mhm. moo tax nag waa ñu xaw seen ont seen jooytu président bi remplacé Macky Sall am ci moom yaakaar. Mhm. yéen a yay parce que loolu moom dina faj dana faju incha allah. incha allah nga